alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalqi sayidi almursalina wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokkis internet euh, yu dakar midi point com point net ñu ngi leen di ziar bu baax fi ñu leen daan ziare ci seen émission shukran ñu ñëw ak yéen ci suñu ñaareelu tomb ci war wari koor euh, dafa mel ni yëf yaa ngi doog a commencé soreegul ñuy ñaan yàlla àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin xam naa rek comme la ñu ca waxoon suñuy jataay bi weesu moom la ñu ciy beesalaat rek mooy gën a nàmmaat yéene yi ndax jullit moom yéeneem du ràpp mukk fa mu toll rek daf koy dàbbali ndax yi gaaraate dafa bari te ku moomul sa bopp mënaloo sa bopp dangay wéer sa bopp ci ki mën a ki la mënal amal la muy suñu borom bi subhanahu wa taala Euh, mbokk yi koor nag comme ni ñu ko waxee woon ci jataay bi weesu rek yéene ju sell te rafet bokk na ci li ciy gunge ab jullit ndax nag yàlla li mu ñu sant ñu di ko ko defal la ca gën a taaru la soxla moo tax wax na ko ci alquran ne wa ma umiru illa li yaabudullaha muxlisiina lahu diin yàlla nee na li ma leen digal ngir ngeen di ma ko defal ci li ma leen sant bokk na ca mooy li gën a sell ci diine moom lañu yàlla sant ne nañ ko koy defal euh, yéene ji nag ndeysaan mu am suñu benn maam bu baax Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu wax ko ci yóbbalu ndaw ñi téere boobu mu ko tudde muy tazawadu sigaar mu ne siyaamuna faridataani bila ziyadatin wala nuqsaan mu ne sunu koor daal ñi ngi ko tënk ci ñaari farata yoo xam ne amul lu ca dolleeku mais amul tit lu ca mën a wàññiku maanaam boo ca dollee dañ naan la li nga def ëpp na waaye boo ca wàññi it kenn du la fay ñu ne ko mbàkke loolu mooy lan mu ne yetu niyatuna wa naa anil muftiraat li wajhi baaqin mut'imin bi tayibaat mu ne suñu yéene nañ ko sellal ba mu rafet téye suñu làmmiñ téye suñu biir ci lépp loo xam ne dana dokkoor ñu ne ndax dañ koy def ngir sàmm suñ bopp kese mu ne déedéet def ko ngir jëmmi yàlla parce que yàlla moo la tax di def ndax koor bu fekkoon am na buur boo xam ne dafa wàcc ci àddina di ko sanc sant nit ñi di leen ci forcé ah du ma ne du am ñu ko def mais dana am ñu bari ñu la échappé parce que ruq ba muy nekk di fa jox boppam lu mu lekk ak lu mu naan mënoo ko xam munoo ko yëg mu ne te nga góorgóorlu it nag ba bu ngoon jotee booy dog mbaa ngay def dara ci sa biir na góor góorlu ba mu doon lu lew mu ne masnuunuhu salaasatun inda allabibi taajiluna alfutuuri min baadi algurub mu ne sunna yi liñ ci gën a sopp ci sunna yi ñetti sunna la ñu ne ko ban ak ban la mu ne mooy yu jóge woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa ndax yàlla bi mu ñuy royloo daf ne ñu woon laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun xasana yéen jullit ñi daal am ngeen exemplaire bu set wecc bu leer naññ bu ngeen mën a copier boo xam ne su ngeen defee li mu def bàyyi li mu bàyyi danaa leen jàppe jullit ñu baax mu ne mooy lan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon koor li ci gën mooy kiy teel a dog mais woor rek jëmali guddi yiw nekkul ci koor googu bu jant bi di sorek yow na la fekk nga dog mbay yi ngay doge jege la mu ne wasaani taqiru suhuuri laylan thaalisuha kafful lisaani qawlan dégg nga wax ji mu ne bi ko ñetteel mooy di yéex a xëdd guddi na nga koy def di yéex a xëdd waaye teel a xëdd tëddaat fekk ne fajar gi des na ay une de temps loolu it ba tey wuñ ko ci parce que lépp li ñuy bañ mooy nga lott ci bëccëgu weeru koor te yàlla daf ne woon wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahiman bu leen rey seen bopp parce que yàlla daf leen a yërëm mu ne beneen bi ko ñetteel muy téye sa làmmiñ ci wax lu dul noonu téye sa làmmiñ ci wax lu dul noonu parce que ki woor waxuñu la rek nga tëj sa biir bi ci doo lekk doo naan déedéet dafa am yeneen organes yi nekk ci yow yoo xam ne ñoom ñooy gunge koor googu pour mu symboliser wu doon dara yooyu mooy lan mooy téye sa làmmiñ ci wax lu xaraam téye sa tànk ci dox lu xaraam téye sa loxo ci laal lu xaraam téye sa bët ci xol lu xaraam loolu mooy koor dëgg mbokk yi foofu lañuy ñuy yëkkatee suñu jataay ak yéen di leen jox dig daje ci jataay yi ci kanam incha allahu taala di ñaan yàlla mu defal ñu dégg ak topp di leen wax wa aqiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu